asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yu football TV nuyu naa leen bu baax a baax ziar leen képp ku xamante ne bés ci chaîne bi la bul xaar abonnel cliquer si cloche boobu ngay gis vidéo bu ñu dugal nga mën ko seetaan bul fàtte tamit un vidéo c'est très important tey nag dañu ñëw wax si Ismaila Jacobs latéral gauche nekk football club Cologne fële Bundesliga nekk benn joueur bu xamante ne dafa joxe woon ay kàddu sénégalais yëpp lii ko nag muy wax ne moom dafa bëgg jouer Sénégal ñu bëri amoon ci mbégte ndax dañoo amoon problème latéral gauche occasion bi taxaw si jamono boobu boobu kenn convaincu ko ba tax mu defaat beneen déclaration comme quoi Austin bu fekkee Allemagne bëgg nañ ko day dem ba tax entraîneur espoir yu Allemagne sax mujj ko convaincu ba mujjee sax coupe d'Europe bi mujjee nii yàggul teewul nag booy ba tey fàttewul Sénégal njëkkoon na publier benn photo Instagram def drapeau Sénégal beneen joueur bu xamante ne dafa am ay origine Sénégal nekk quand même Allemagne Bundesliga 2 like photo bi ba ma defoon ci vidéo di leen wax ne booy bi mu fàttelu Sénégal te ba jamono bi moom lay confirmer démb beneen photo bu mu dugal beneen tableau moo nekk si ginnaaw drapeau Sénégal nekk si day confirmer ne kàddu yooyu mu waxoon ne dafa bëgg jouer Sénégal loolu ba tey moo ngi fii leneen lu xamante ne mën nañ ko si doole mooy que ñëpp xam ne Jeux olympiques de Florida lu yàggul tuuti waa France joxe nañ seen liste même si seen liste changé na lu bëri ndax club yi dañoo bañ au niveau de Allemagne nag joueur bu mel ni Ismaël Jakobs bokkoon na si donte bokkoon na sa coupe d'Europe xale yi Ismail Jacobs kenn convoqué que pour mu mën jouer Jeux olympiques ba tax est-ce que envoyé benn message exprès rien que pour le Sénégal ñu bàyyi ko xel nak kii que journal bi nek foofu ci Allemagne li mu publié woon que fédération sénégalaise de football moo suñu contacter Ismail Jacobs lool mom kii que moo bind ben journal bu mag bu nekk ci Allemagne ba taxna boy booy bi jamono bi dafa nek nak di draguer Aliou Cissé mën nañ wax alhamdoulillah parce que am nañu Fodé mais quand même ça lui de l'autre côté et que nous savons xam nañ première division Bundesliga du l'heure à chaque fois ak intensité bi fi propre ak Ligue ak lu ñu wax nga gauche comme latéral du Sénégal mais dossier Ismaël Jacobs Aliou Cissé si mëna taxaw comme ni mu taxawoo Nampalys Mendy ndax dafa sonn si Nampalys Mendy pour que mu ñëw équipe nationale du Sénégal coono boobu mos daj moo tax Nampalys Mendy à l'âge de 28 ans 29 ans ci la ñëw donc Ismaël Jakobs c'est un latéral bu xamante ne franchement latéral moderne quand même sànni ko si match contre Berne performance yu mu def nekk latéral bu xamante ne foofu ci Allemagne dañ koy bàyyi xel et que bu continuer yi mën ngeen ko gis sax si top 5 équipe nekk foofu ci Allemagne ba tax na après photo boobu mu publier day confirmer fàttewul Sénégal benn yoon et que suñu fédération sénégalaise de football ak Aliou Cissé war nañ mën a taxaw si dossier bi convaincre boy bi mu ñëw équipe nationale du Sénégal laata éliminatoire coupe du monde bi ak coupe d' Afrique bi xamante ne fii ci réew mi ñëpp moom la ñuy xaar. donc mbokk yi nag ci commentaire wax leen seen xalaat ak seen gis-gis mu leen di jaajëfal nag bu baax a baax di leen wax ba beneen sur seen football.